ginnaaw bi leen nuyoo ziar leen yéen ñuy faral di daan yëbal Vision TV tey ñu dara Serigne Saliou dinañ waxtaan ak moom ci liggéey buy liggéey rawatina lam yi xamante ñu ngi ko dëggmal Siteu mi xam Serigne Saliou ko ak Siteu mu nekk mara boo xamante ni moom dafay ñaanal Siteu ci ay combat am danañ ko bàyyi mu nuyoo ñu continuer waxtaan bi Serigne Saliou ñu ngi lay ziar waaw auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yëpp ñu ngi jural nuyoo bi si kilifa si Mountakha Mbacké Bassirou di ko ñaanal lool suñu borom yàgg fi lool di ko ñaanal kilifa diine yëpp si barke alxuraan di ko ñaanal suñuy kilifa si Abdoulaye Diène nga xam ne moo toog xalifa maam si Issa Diène suñu lool ba mën àggale suñu liggéey maam yi maam si macha allah sëriñ Saliou comme ni ko waxee woon ci commencement bi nga nekk koo xam te ne maara nga buy ñaanal Siteu di liggéey ak ñu bëree bëri eh, ci ci Sénégal bëgg naa ñu waxtaan actualité rawatina Siteu en tant que sëriñ Siteu nekk koo xam te ni taalibe la ci yow nga koy ñaanal nu gis ne aussi def na jàkkaarloo moom ak kële ñuy wax la de Guiers mel ni ñu bëri dafa jàpp ne dañ koo xabatal wala dafa naan wala dafa màndi noo gisee jàkkaarloo boobu. waaw fekkee ne wàllu si wàllu Siteu moom Siteu moom dafa nekk koo xam ne man maa ko bëggal sama bopp parce que man ak moom si borom dogal na ne taa yu muy bëree mbapat ba léegi man ak moom la Siteu moom ni nga xamee xamuma ko beneen mbër moo tax si Sénégal moom. mbër yi mbër yi nga xam ne dañ lay dégg yëpp même Siteu kase kase kase laa si ñaanal kon fenn ay milliards yu bëri Siteu laa wallaahi du ma la ñaanal loolu moom suñu borom dimbali na si waaye làmb ji damaa bëgg nit ñi def si ndànk ñu bëri yaakaar nañ ne nag bu ay suufle kii Lac de Guiers day daan Siteu waaye làmb ji sama làmb la. lam ji sa lamb la lam ji sama lamb la lam ji sa lamb la ñu gis ne Lac de Guiers ñu bëri jàpp nañ ne dafa xëptal kii ñuy wax Siteu ndax loolu am na lamb ji ni may waxee yow Siteu wallaahi kenn jàpp ko si gàllaaj kenn jékkiwu ko. kenn jékkiwu ko si galaat te te Siteu mi si làmb ji Siteu moo lay wax mi ngi si làmb ji la mi ngi si làmb ji. dama dégg sànq ne làmb ji sa làmb la lam tax nga wax loolu. waa làmb ji si saa bàtt yëpp da ko si da si jàpp bu baax a baax ba si borom ma ñu ndam incha allah si kàttanu yàlla. ndax Siteu daf laa daf laa fay. Siteu fayu ma dara man maa koy la ngir jëmm yàlla xam nga Siteu xol bi dafa rafet. Mhm. Siteu boo xoolee si li mu def si si fóori mi nga xam ne xaritam la xool li mu def foofu di ànd ak nit ki mu jógee àdduna mu jógee fi si borom dogal nga wërsëg ba tabaxal yaayam kër loolu rek dafa nekk loo xam ne ni dafa rafet a tax Siteu su ma su ma joxoon ay ko moom yëpp da nga ko def te yàlla tax waaw Siteu mosuma moom ginnaaw ko ay ñaan am na sarax yoo xam ne ni man maa ko génnee sama bopp te moom du ko yëg sax moo tax làmb ji sama làmb la gis naa sëriñ boo xam ne dafa génn nag ànd ak Lac de Guiers làmb làmb ja mais incha allah xool ba le ba le 19 incha allah rabi. le 19 naka nga nar a ànd ak Siteu. waaw man moom le 19 moom incha allah rabi maa hmm. xam ne mooy may ndam suñu borom may ñu ndam suturaan ñu yaakaar bu a baax Siteu de Guiers am a baax a euh, na solo trop ñu continuer tuuti rek euh, ci euh, ba tey yow yaa ngi féete ci cadre Siteu ñu gis ne Modou Lo ak Ama Baldé seen combat jege si daanaka la cinq bii di ñëw la nak nga gisee combat boobu. lamb jooju na sécurité bu doy. làmb ji na sécurité bu doy te xam na làmb ji avant làmb ji ak après làmb ji xeex bu bëri dinañ sàmm ba ay deux tours wallaahi li ma la wax nii ma su ma seen promoteur bi na wut ndoxum géej ak ndoxu teen mu is ko si si stade bi wut gaz gu bari mu is ko mu mu def ko si biir stade bi bu ko defee si morom mën naa mën naa fang coow yi parce que loolu day faj yow. te ni te ni ko laay yi da ko war a ñaanal te xam ne moom fi mu fi mu fekk làmb fi mu ko yóbbu li ñu ko laay méritewul ñuy ñuy fakkasal ay tànkam. ah dañuy fakkasal ay tànkam. si mu si Ndiobalay mu si Fallou wallaahi liggéey yi nga koy def ay jafe mooy moo ko war a jafe-jafe yëpp loolu dama koo seet ba gis ko. moo tax moo moo tax na ko Sénégal jàppale ndax làmb ji àgg te te làmb ji na si wut sécurité yoo xamante ni sécurité yu doy la bu ko defee si mborom moom ñu ngi ñu ngi ñaan si mborom àggale làmb si kàttanu yàlla waaye làmb Modou Lo Ama Baldé xam man damaa tege woon damaa tere woon wax waaye làmb ji gis naa si jël boo xam ne ki nga koy suñ ko ko daanee gën a yéeme de dina yéeme gën a yéeme waaw am na solo trop bëgg naa ñu continuer tuuti balaa ma ñëwaat ci combat ba parce que dina yéeme boobu bëgg naa ñu leeral ci lu bëree bëri ci jël bi naka lay demee yooyu yëpp bëgg naa ñu waxtaan ci mais damaa bëgg ñu waxtaan cadre seet Serigne Saliou da ngay seet ban façon seet am na ñoo xam ne dañuy seet si putaaw am na ñoo xam ne dañuy seet si si wàllum ron am na ñoo xam ne dañuy seet si ay euh, béjjën waaye man Serigne Saliou moom sama kurus gii moom si laay seetee képp koo xam ne man jox nga ma sa tur ak sa tur waajur bu jigéen ak sant yi incha allah su ma la seetalee même boo njaaloon mooy yàlla si mbooloo dama koy woon dama koy wan. même bu njaaloon da nga koy wax. même bu njaaloon mooy yàlla laa si mbooloo dama koy wan parce que man si si si kurus laay seet. Mhm. man si incha allah man kese maa fi taxawoon di seet ñu liggéey nit ma ne koo diw moo la liggéey man si incha allah man kese waaye loolu dama ko dama ko teree waaye képp ku ma jox sa tur ak sa sant ak sa tur waajur bu jigéen ak sant lépp jafe-jafe bu nekk si yow wala gàllankoor incha allah si kàttanu yàlla gënaa la ko wax waaye man nag du ma nekk ni xam ne damay seet di wax loo xam ne tey nekkul loo xam ne lu ma gis la ma lépp lu may def sama diggante suñu borom laa si xool man noonu laay man noonu laay liggéeyee te suñu borom dañoo dimbali dimbali goo xam ne ñun duñu wax loo xam ne tey leeruñu nañ te tamit duñu wax duñu wax loo xam ne tey suñu nasu bakkan la lépp lu ñuy wax dañ ciy xool suñu diggante suñu borom moo tax képp ku may jëflante damay jëflante yow ngir jëmm yàlla ba sa aajo fay si kàttanu yàlla. am na solo trop nuy faral di gis eh, koo xam ne promoteur la woon da doon tëgg làmb mu nekk koo xam ñu koy wax Gaston. gis ne kii ñuy wax eh, Gaston Mbengue moom gëj na ci làmb gason Mbengue nekk koo xamante ni dafa nekkoon ci feebar jamono bi ay mbiram ndax xam nga si daal. waaw wàllum Gaston Mbengue eh, ay 4 mois si ginnaaw am na am naa lu ma si waxoon waxoon naa promoteur bi bi Gaston Mbengue nañu jug si ay mbiram waaye Sénégal dafa naqaree wa soo waxee ñun ñoom fi du ñu ko déggee. mënoo jàpp ne kii day wax nax nax su bakkanam wala loolu waaye man lépp lu may wax lu ne sama diggante suñu borom laa moo tax nag laaj ma si leneen man moom du ma sori falaa falaa mën a yem bëggoo cee sori daal waaw du ma du ma si sori parce que Sénégal fii dafa naqaree waxee moo tax hmm. waaw incha am na solo trop ñu dem ci cadre kaaraange dama dégg sànq ci sa biir wax nga ne lam ja képp koo xam te amoo sécurité wala amoo kaaraange bu doy bul ca dem nga ne dara ju mën na cee am lu waral lool. waaw bi la kaaraange moom ndaw bu nekk toll si buntu àdduna bu nekk war na am kaaraange parce que fekkee ne su suñu Sénégal bi dafa doy waar boo jiwoo ko daal nit ñi lay fa kasal te man ngaa ndox ba dëgg liggéeyu jàmm wala nga ndox ba dayoo kor wala ñu catu la ba si borom dogal lépp loo amoon mu yàqu yaxet wala nga nekk si ay jafe-jafe te wàllum cat moom yonent bi daa waxoon ne euh, sama moom mujj jamono sama sama xeet ñi nga ñi nga xam ne ñu ñu si bëri la ñuy ñuy gëdd na bët ak làmb moo leen jàpp. moo tax képp koo xam ne tey sama ndomba gii nii jox naa la ko muy wàllum cat ak kor ak liggéey incha allah képp ku la jiwoon lu bon suñu borom moom gën la si musal bu baax a baax a baax ko takkee moom say noonu moom incha allah rab moom dangay gis parce que moom ñi nga doon jëflante ñi nga xam ne say noonu la da da lay commencé daw si kàttanu yàlla. waaw nëmbatul gi ndax am na. parce que bii paas maa la ko doon laaj nga ne dafa jeex. waaw nëmbatul gi moom suñu borom dogal na ne wutal naa ko moo nekk nii. képp koo xam ne képp koo xam ne tey da nga koo takk insha allah yi ba mu def xottu butéel parce que man moom lu may lu may wax lu ne dama si dama dama si jël seere suñu borom. ah ay weñ ak yooyu rek moo ko. weñ weñ kese waaw weñ lépp bépp weñ boo xam ne tey day lore insha allah rabi du la dugg si kàttanu yàlla mbaaxam. Mhm. beneen ndomb bi moom ñi nga xam ne dañoo yor jakarta wala ñu yor ay ay oto takk de di leen sonal wala ñu nekk bitim réew xam ne lépp jaay bi ñuy jaay bi policier dañ lay sonal li boo ko takkee incha allah rek moom si borom dina dimbali ba policier yi moom si kàttanu yàlla dina teg loxo incha allah rek incha allah ndam nga moo nekk nii waaye du ma ko jox koo xam ne tamit day def loo xam neexu suñu borom mm-hmm. waaw képp ku ma ko jox ginaa la laaj ba pare ba xam si looy liggéey waaye wala si looy dox incha allah rek moom ma sa la ko jox si kàttanu yàlla dañuy waxtaan ci cadre noob temps yi passé nga ne képp koo xamante ne day caaxaan doo ko noobal ma yaakaaroon noob ku ñëw rek da ko war a noobal ci yan façon noob ngay noobee aussi waaw bu fekkee ne wàllum noot ku ma jox ay millions ñëw na ma notu ma diw du ma la du ma la lijjeel man man parce que man note gi ma yor note gi dafa wéwét goo xam ne tey chaque jour ma jëflante nit mu ne ma Sëñ Saliou war naa si sëriñ su nekk waaye sama yaakaar si yow yoo laa ko am incha allah rek moom. ne Sëriñ Saliou yaa ngi yëngu ci mbirum noob mën na xam yan façon noob ngay noob. waaw su fekkee ne wàllum noonu moom si borom dama dogal ne doo ñu woo téléphone rek nu ma sëñ bi damaa bëgg a noot la ñun ñun liggéeyal la parce que ñun boo ñu fayoon ay millions woo ñu ne dama laa bëgg a liggéeyal si wàllum noot wax dëgg yàlla dañ koy xool ba pare dina la laaj lan moo waral ngay ngay nootlu parce que ñun duñ ko defar koo xam ne tey ay caaxaan la parce que nit ki moom boo ko liggéeyalee ba suñu borom dogal li nga ko liggéey mu sotti su fekkee da say caaxaan wala mu si mooy yàlla yow bàkkaar bi yow bàkkaar bi yow moom bu si amee benn mm-hmm. moo tax lépp loo xam ne tey da nga koy def da nga koy xool suñu diggante suñu borom waaye képp koo xam ne tey dangaa bëgg a takk nit ki jox ko jox ko sa xaalis mu bëgg laa woo incha allah rek moom boo ñu boo ñu woowee bu si jëflante ak yow du mat une du mat une semaine du mat su fekkee da ngaa nekk si da nekk si si si sëy dafa am ay jafe-jafe yow ak sa borom kër wala yow wala yow sa soxna wala ñu wala ñu dëdale nit nit nekki ki si nu yàlla li ñuy wax ak yow sart yi lay teg boo ko atténé te man tam man ko incha allah rek moom bu ñu si jëflante yow si kàttanu yàlla ak mbaaxam du mat une semaine si borom dogal la incha allah rek si kàttanu yàlla loolu am na si yaakaar bu baax a baax a baax a baax ñi ñi si liggéeyal yëpp ñu si gis ay yu baax a baax incha allah si kàttanu yàlla. bu ñu jógee ci boobu dañuy ñëw ci cadre ngóora parce que gis nañ jigéen ñu bëree bëri dañuy commencé tas seen sëy yi ndax seen jëkkër yi mënalu leen lu bëri. waaw su fekkee ne wàllum ngóora parce que moom ñaari jàngoro la ñuy faj ñuy ngóora ak émétique ñun ñaari jàngoro yooyu lañ suñu borom dénk tam kese lañuy yem te moom la ñuy faj. faj leen ndoxum waaw faj ñu ndoxum siti ñun ñaari jàngoro kese la ñuy faj muy émétique ak ngóora. Mhm. ngóora bi moo nekk nii man képp koo xam man dama laa jax tey dama na ma dama damaa tële damay bind sa tur enregistré sa numéro garab gi su ma la ko joxalee boo jëlee traitement bi ma ginnaa la woo dina ba xam fa la traitement bi toll. Mhm. parce que wàllum garabu góor bi dafa bëri ñu koy jaay bëri na lool te te ñuy jox seen seen garab yi dañ si gis tawfeex waaye ñun moom képp ko xam jox na la lii ñaari pot yi mooy traitement boo ko jëlee si kattanu yàlla di nga mel ne xale boo xam ne tey bu am ñaar la. Mhm. xam nga ku mu gën a aay mooy mag mi ne am na soixante am na soixante-dix ans mënul dara. incha allah rek ko jëlee si kàttanu yàlla gën mel ni xale boo xam ne nii vingt ans la si kàttanu yàlla ba yëpp si kàttanu yàlla moom da nga ko fekk ñu bëree bëri dañu nekk célibataire bëgg cee yàgg parce que dañuy bëggal sëy mais duñ gis ku leen takk maanaam dañuy lamb ndax jigéen bu la mën a def pour am jëkkër waaw jigéen bu lamb moom li nga war a daa bëri rab mën na koo waral dem li ñu tuddee mbaraan mooy nit ki am yéene si yow bëgg la te yàlla tax dina la di di la wërsëgam am yaakaar si yow na bu la ko bu la ko defaree moom di nga nekk soxnaam nga jekk-jekk xëy wo war ko nit ki mën na laa liggéey tamit dëj la ba doo am jëkkër rab mën na koo war a waaye ñun moom lépp loo xam ne tey am kii na ko xool nañ ko buñ ko seetee ba pare bu dul rab incha allah loolu li lay defar moom fukki fan ak ñett nga koy sangoo bi la góor fukki fan ak ñeent incha allah rabi du yàgg dara suñu borom gën a may borom kër bi gën si borom kër yi incha allah rabi incha allah rabbi am na solo trop aussi danuy continuer yopp yow ba tey góor ñi xam dañuy faral di mballu parfois man di fooye seen bopp lan mooy solution bi. waa su fekkee ne wàllum su fekkee na wàllum loolu loolu moom li koy war a bëri na fekk na rab tamit da koy waral wala communiquer bi ñuy communiquer jigéen ñi loolu la koy waral waaye bépp mooy yàlla boo xam ne tey da nga koy def muy tuux muy naan muy njaaloo man soo ma man soo ma woowee si kattan yàlla li ma lay jox nga koy naan incha allah bépp mooy yàlla. si moom ginaa ginnaaw moom si kàttanu yàlla mu baax a incha allah loolu moom si borom dimbali si bu baax a baax a baax incha allah. mbirum bayre aussi. waaw su fekkee ne wàllum bayre dafa bari ay façon bayre place daa am bayre ndax yow yow nit ki dafa am waaye ñun duñ jox kenn bayre di la lor te jox ñu la kaaraange képp ku ñu jox bayre muy bayre place muy bayre njaay dal lay jox loo xam ne tey day samp sa bopp ba xam ne bët du la mënal dara la mën du la ku la liggéey faatu. ku la liggéey faatu. ku la liggéey faatu ñu am nañ kaaraange boo xam ne tey boo ko sangawee képp ku la liggéey day faatu incha allah rabi moom ñun moom du duñ liggéey liggéey bu bon mais gën a aar nit ki ba ba képp koo xam ne daa jëm si moom dara suñu borom moom gën a dogal moom loo mu jëm si moom du am. waaye bayre bi ñuy joxe moom képp ku ko képp ku suñu borom dogal nga am ko si kàttanu yàlla incha allah bi ni na ko waxee nga jëfandikoo noonu da bu baax a a baax si kàttanu yàlla mbaam incha macha allah am na solo trop Serigne Saliou politique Sénégal balaa ñoo tëj ndax nga ko gisee. waaw su fekkee ne politique Sénégal moom moom moom dafa dafa nekk loo xam ne dafa jaxasoo te réew mi moom da xam ne ku ci ku ciy toogaat jullit lay doon taw toogee gën a gën a yërëm ndaw ñi si kàttanu yàlla mbaaxam te ndaw ñi dëkk bi métti gi métti moo tax ndaw ñi di jaar ci gaal gi fu nekk ñi siy jaar parce que Sénégal métti na métti goo xam ne day ndaw ñi am amuñu liggéey ba pare képp képp képp koo xam ne da ngaa yeewu. gis sa waajur muy dund lu metti yow amoo loo ko jox yow da ngay reyante ndax jaar si ndax jaar si ndox mi Sénégal métti na lool métti na fu mu fu métti na ko waaye ñu ngi ñaanal suñu borom def si Sénégal jàmm si barke alxuraan di ko ñaanal suñu kilifa yëpp. balaa ngay tëj mbirum passeport mbirum papier mbirum visa. ak jaaro aussi. waa su fekkee ne wàllum kayit ñun moom wàllum kayit moom suñu borom dañoo dimbali dimbali goo xam ne tey fees su wala na wàllu këyit da lay seetaan ba pare bu la seetalee ba pare ba xam ba xam lan moo ko waral parce que cat mën na laa jàpp ba loo liggéey du mën na naa liggéey ba loo liggéey du sotti rab tamit mën lay yàqal moo tax bu la seetalee ba pare li lay jox boo ko sangawee ni la waxee nga defee ko noonu si kàttanu yàlla su fekkee ne këyit bu këyit bu gën si yow la si mborom dina la ko jàpp nag su fekkee ne tamit wàllum jaaro bi moo nekk nii doomu aadama bu si nekk dafa am couleur ñun jaaro bi képp ñu ngi koy jox da lay xoolal sa couleur da lay xoolal ban couleur ngay sol ba pare te jaaro bi day dox si wàllum kaaraange day dox si wàllum kaaraange day dox si wàllum accident day dox si wàllum loxo bënn te képp ku ko takk incha allah rek moom incha allah si kàttanu yàlla borom gën a ay doomu aadama yoo xam ne tey gën a jëflante yow te wërsëg loo si yor bu yokkul du wàññi ko si kàttanu yàlla ak mbaaxam incha allah rabbi la ngay tàggatoo. waaw ñu ngi ñaanal euh, suñu kilifa yi yëpp suñu borom yàggal leen fii suñu kilifa diine yi di ko ñaanal euh, suñu sëriñ si si Abdourahmane Mbacke borom yokk leeram parce que moom euh, li waral sëñ Saliou bu demee bay toog di wax wàllum xam moom dig leen dig goo xam ne tey lépp lépp lépp moom la waaye ñi ngi ñi ngi joxe naafale boo xam ne tey général àdduna dafa dafa nekk loo xam ne àdduna gudd àdduna doomu aadama bu si nekk yaa ngi dox di def bàkkaar boo yëg ak boo yëgul doomu aadama bi ah bu xëyee war naa def astafurlah su fekkee ne mënul def mil mille neuf cent quarante sept sax muy def téeméer ñu ngi ñu ngi joxe boo xam ne tey képp ku ko def bàkkaar bu la suñu borom mën na la bindal incha allah rek moom si borom dina la ko teggil si kàttanu yàlla euh, ñetti ñetti ràkka la da ngay jàng faatee bu seel la sooratul Ikhlas ñetti yoon nga def ko ba mu nekk juróom juróom-benn raaka incha allah rabbi boo sëlmalee nga def astafurla téeméer ñaan suñu borom suñu borom jéggal la bépp bàkkaar boo mën a def incha allah rabbi moom suñu borom dina ko teggil te te doomu aadama yi nañ fi daawu seen bopp parce que tey jamono toll foo xam ne tey nit ñi toll tawatuñ kenn jamono ji métti na même boo demee si armée yi bu ñuy suul sax ki nga ki nga xam ne moo joxe ñaan yi balaa balaa pare ñaan gi ñaan balaa nit ñi pare ñaan gi ñaan day euh, day pare mais moo tax képp képp képp koo xam ne mën ngaa tudd aw sa bopp muy douze mille bismillah rahmaan rahim nga def ko si borom jéggal la may la kër sa ajana na nga ko def parce que àdduna moom dee day ñëw te dee kenn xamul kañ kañ la kenn xamul fan la moo tax nit ñi nañ nekk si lu baax jub bàyyi liggéeyante bi bàyyi yàqante der bi bàyyi wax ju ñaaw ji parce que doomu aadama moom dafa nekk loo xam ne tey nekk nekkul dara bala ngaa xam ne doomu aadama du dara rek nga feebar wala bëñ bi métti rek dal la fa nga xam ne yàlla mooy kenn waa ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal Sénégal suñu borom defi jàmm si barke alxuraan